suñu teewaay fii mooy ñu organiser benn jataay boo xamante ni bi ñaari fan lay doon euh, ñu waxtaan gëstu xoolaat bu baax li nga xamante ne ciment def na ko pour gën a suqali finance islamique ndax finance islamique gis nañ ne Sénégal wala ci dëkk yi ko wër euh, mu ngi développé wu bu baax parce que si nous avons les banques centrales, yàggul euh, génne na ay instructions boo permettre banquiers banquiers wala yi ñu de microfinance yi ñu des def euh, finance islamique nous na soxla bu am solo boo xamante bi am

ak avons boo xam programme de développement de la microfinance. Nous ñëw en atelier comme nous ngeen ko xamee ci mission ou promise Nous dañu war a teg li nga la euh, microfinance islamique ci pratique am ci suñu dëkk. alors booy wax euh, microfinance islamique booy wax financement nous allons wax ne établissement microfinancé dañu a collecter ay séddalewaat ko ci ay investissement waaye dafa am benn volet bi nga xam ne assuré assurer cëslaay bi mu nekk volet bu am solo mooy assurance donc assurance mooy tax lolo même bu fi nit ki jógee assurance moy mëna motali euh yéene bi donc euh, ñu doon xaar ba légui nak pour que assurance bi tam mëna légal mëna nek euh, jaar ci mëna permettre légui ñu def assurance islamique pour que nga xamné buñu démé bay def microfinance islamique dootu ñu dem euh, jéggaane beneen façon assurance dañuy jël assurance bi nga xamante tam ci charia le tënku donc pour ko défé écosystème bi yëpp mëna a mat euh, loolu moo ñu waral fi tay ndax bi instruction yi génnee ak BCEAO gis ngeen dañu oo acteurs yi parce que ñun lolu moy suñu mission pour que acteurs yi mëna xam liñ leen sante ñom ñuko wara doxal

dafa gis ne euh, li nga xam ne dafa xaw a sooxe torop mooy li war a financer économie bi mu gis ne benn bànqaas rek la ñu am buy financer économie mu am ay avantages am ay contraintes mais nag mu gis ne am na beneen façon ngi financement boo xam ne dugalaguñ ko woon suñu réew muy finance islamique te kooku def ay preuve gunge ay dëkk ba ñu génn euh, atteindre seen objectif ci émergence améliorer seen ay conditions de vie fin euh, financer une économie euh, sociale et solidaire seen dëkk financer une économie locale ñu génn ci bien le modèle mu ne kon nag modèle bob dañu war a fexe mu dugg ci suñu espace après dugg ci suñu réew donc loolu nous tax ñu ubbi du buntu Sénégal finance islamique léegi Sénégal dinañ am ñaari de financement donc de fait yombal financement yi ndax ku xam ne ku nekk xam nga ni euh, bar na bar goo xamante nit ñi légui gëm nañu sax auto employabilité parce que ku nekk da nga daan yaakar bu njëkk ba da ngay xey dem outil liguey fenen waye léegi ko gis mu ngi bëgg a def liggéeyu boppam donc té ku bëgg def sa liguey bopp nak dafa laaj accompagnement financier bu bu bari donc pour diversifier offre de financement yi ak aussi euh gëna permettre parce que boy xol tay établissement de microfinance problème yi ñuy jànkoonteel yëpp moy nit ñi duñu am souvent éducation financière da ngay tëb rek tàbbi ci établissement microfinance wala nga tàbbi ci banque te li nga xam lañ la war a jàngal pour éducation financière dafa des mais alhamdulilah rabbi alamin ba nga xam ne finance islamique mënul mooy jàngal nit ki euh, éducation financière jàngal ko nu nuy doxalee ci wàllu yoonu finance parce que euh, moom dafa ñëw pour ne nit ki euh, duma la may jën waaye dama lay jàngal nooy nappee donc munu ko mooy te loolu dafay yokk itam ñun ñëpp suñu xam ak suñu nangu Euh, tënku ci yoon bi nga xam ne moom la finance euh, teg. taxawaay assurance bi bi taxawaay bu am solo la ndax man dama fi teewal direction des assurances bi nga xam ni moom moo yilif secteur assurance bi fii ci biir Sénégal euh, ndax bu fekkee dañoo génn xool ci réew yi nga xam ñoo bokk zone franc am na tutelle surrégionale bu fa nekk bu ñu woowee CIMA. tutelle sur surrégionale boobu nag ci mois d' octobre bi bi bi bi weesu dafa jël ay ay ay ay ay textes maanaam ay loi yoo nga xam ni mooy ñëw compléter dispositif réglementaire bi nga nous nous euh, euh, assurance islamique zone franc donc euh, ci biir lolu secteur des assurances notamment direction des assurances bi nga xamni secteur bi Sénégal taxawam bu am solo la Promise